ziar am mbégte ak kontaante dellu si waat seen émission ëttu ndaanaan ëttu ndaanaan nag dalal ci benn ndaanaan boo xam ne dootuñu ko présenté ci réew bi ak bitim réew comme ni ma ko waxee ci émission yi. Euh, Baye Gaye boo nee ndaanaan ndaanaan jeex Baye Gaye maa ngi lay nuyu ci ëttu ndaanaan. waaw El Hadj maa ngi lay ziar ah waaw rafetlu bi di nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi. nuyu rawatina suñu dëkk Thiès ay benn dëkk ñaari gaar nuyu waa àdduna bépp nag ah di leen ziar bu baax a baax a baax ah di la joxaat kàddu merci beaucoup mon frère euh, ñu ngi lay kontaanee di am mbégte ak kontaante ci euh, nangu gi ñu nangul ñëw ëtt ndaanaan ñoo ngi kontaan lool ci euh, nangu gi nga nangu ñëw ëtt ndaanaan mais Baye lan moo la lan moo la booleeg aar. ah aar ah, ah. aar nag li ma booleeg moom bari na. bari na mooy tey. ma nekk xale yàgg ko bëgg yàgg ko suivre. Mhm. depuis 2015 déggal ma yàgg a toppandoo Sanekh mais su ma demee ba dugg ci théâtre dëgg 2010 la. ans ci ren am naa ci 11 ans ci ren. 11 naa ci 11 ans. Mhm. waaw. mu nekk loo xam ne lu ma bëgg la lu nekk la ci man. bëgg naa ko lool loolu ba amul fu mu yem ok moo tax nga ciy defee ni nga ciy demee. moo tax mu nekk ci sama yaram xam loo bëgg rek nga sentir ko ci sa bopp rek pour man war nga cee mën a def loola neex yaa ko moom. donc Baye dafa jàng aar wala comme li li ci dugal ñu bari léegi bëgg-bëgg bi rek tax ñu dugg ci aar moo la ci dugal walla danga am ay euh, ligg yu la dugal ci aar wala da ko jàng. non man li ma dugal ci aar Thiès Dakar la woon Dakar la tàmbali mais toppandoo Sanex mais. lu tax ñun la dañ koy jàng ñun Thiès fii ku ñu théâtre Thiès tëbu tëbu ñu théâtre parce que daa am ci lu ñu lay teg ay normes yu ñu lay teg ngay def formation nekk ci troupe théâtrale di répéter tous les jours Thiès bu la boo gisee kàngam bu génn rek jàppal ni xaw naa dee bala muy sib parce que ci tarbi wu aar lañ nekk dañuy dem répétition cinq heures dem ci basan bi kon lu ñu lu ñu tarbiwu la ñu tëb tëb rek def ko comme ñi génne non non fii euh, Thiès 2010. 2010 Thiès 2010 Thiès. waaw ah, kon fii laa ko jàngee fii laa defee ay formation ak Arcos Arcos bu Thiès. ah jàng ah, Arcos. laa bokk fa laa ne. Arcos waaw Arcos. def ay prestation dem fépp. ñaar temps nga fa def. Arcos 2014 laa fa dem. Arcos. ok eh? mu nekk loo xam ne ci sama avancement ci art def na ci lu bari Arcos. parce que ñoomu njëkk génne dëkk bi ma dem présenté Thiès. yóbbu ma dëkk bu ne. ok Arcos dem Kaolack festivalu Gijel Mbodj ah Sumoon dem naa ci yu nekk Arcos moo tax Arcos moo wane suma benn talent bi à nag Alsane Gueye. ok Alsane bu. mbetteel ci këru Ndeye kooku ma koy nuyuwaale bu baax a baax waaw moom moo waaw démb la woon ñu koy ñaanal tamit gudd fan te xam ni aaru Thiès da ciy def lu am doole da ci da koo ci loxoom yaakaar naa ni ndaanaan du ko dàq xalaat non ñun kooku dañ koo war a njukkal ñun Thiès gépp ah. waaw gépp parce que dafa xam talent ba pare du la soxoree da lay teg kon en lu ci bari ci sama côté moom moo ko ci def. solo mais frère ban troupe nga nekk instant bii nii ban troupe la nii nii nii moom nekkuma ci troupe. nekkoo ci troupe. mais bu njëkk nekkoon naa ci troupe yeete laa nekkoon. troupe yeete troupe mi ngi nekk Angle Sine Fallou. fii nii Angle Sine Fallou. waaw mu nekkoon troupe boo xam ni dëgg yàlla liggéey rek lañ gëm. quatre heures quatre heures et demie dala fay fekk cinq heures boo ñëwee doo répété dañ lay daax baa nga toog fee di xulle kon. mu nekkoon troupe boo xam ñu bari talent ma fa waaw góorgóorlu nag moo ko jiite woon alaaji Latir Kaaw Kaaw menn Kaaw menn Bachir nekkoon scénariste bi Mame Thierno mi nekk ci zi ci man ay Mame Thierno Yacine Ndiaye kon yow ah, yow Mame Thierno yàgg ngeen non Mame Mame Thierno mu njëkk def développé théâtre sur scène théâtre sur scène parce que ñoom comme seen troupe boobu bokk guma ci mais dañoo amoon benn manquant mu jël si woon ma mu ñëw jël leen loolu moo indi sama biir bokk dëggantaan ci biir intégré ci troupe bi bu euh, daan naa ñëw mais jëlaguñ ma woon mais jour boobu laa ci bokk ok ok ok mais euh, ban euh, film nga fàttaliku boo xam ne moom nga njëkk a génne télé waaw mooy bi boo dee xool 2010 la bu ñu ci kaaw moo defoon benn projet kaaw waaw kaaw mais benn image laa ci am muy <laughs> lu neex la lu daw la parce que de waaye waaye daf ma dëpp caméra bi ñun ma waxal deux ans <laughs> film bi yëpp deux ans laa ci wax deux ans. kese film bi une heure de temps wax ci deux ans. waaw mu nekk loo xam ni ay mbégte la. parce que bi ma waxee ñu jox la loolu kese dina wax ko. waaw pour man scénariste bi loolu rek la amoon ci man. pour man pour man loolu rek la amoon ci man te ñun théâtre noonu lañ koy dundee. scénariste bi lu lu nekkul ci yow rek du la ko forcer. du la ko forcer du la ko forcer. waaw ma koy nuyuwaale kaaw bu baax. waaw waaw waaw yokk nañu fit ñu paree ci kaaw ñu ñoo defal suñu projet bopp. muy Kër Baye man Bachir non non Kër Baye moo mujj sax. Kër moo mujj man Bachir ak maam Thierno ñoo def benn projet dugg ci nit ñi lijjanti ko. kan moo ko bindoon kan moo bindoon. Bachir Bachir moo bindoon projet Bachir moo ko bindoon def ko. mu nekk projet boo xam ne jamono ak school la doon. Mhm, mhm. jamono ak school mu nekk sketch boo xam ne sketch bu am solo la woon bu nekk booy quoi di attaay ci def affaire banditisme quoi. ba fan la doon daw moment boobu. non moment lañ ko doon dugal. Mm. YouTube ak CD yi ñuy jaay. CD jaay CD affaire yooyu lañ ko defoon quoi. bi ngeen si jógee aussi ci ngeen def Kër Baay. waaw bi ñu jógee nag après ci laa nekk ci Gueye Trang. ah Gueye Trang njëkk a génne ci télé. ah Guèye. Guèye kóoru Guèye quoi kóoru Guèye kóoru Guèye gi mi doon daw TFM. TFM la doon daw léegi laa génn bi ma jugee ci kóoru Guèye benn at Baye Cheikh ak njabootam ma dem Baye Cheikh ak njabootam nekk ci doomam ci def Baye ak njabootam 3 ans. Mm-hmm. def naa Baye Cheikh ak njabootam 3 ans 3 ans tegale ko 3 ans mais xam rek boobu comme doo xew yàlla waxagu ko. Mm-hmm. doo xew mukk mm-hmm. kenn mënu ci daara doo xew. léegi bu ñu jugee ci trois ans yooyu ma defaat ak Baye Cheikh beneen année année bu mujj bi nag ci laa def kër Baye. kañ nga sentir ne xew nga comme dañ ne boobu xew xewagoo. waaw ah. kañ laa yëg ni kër Baye cartonné na. waaw ah, kër Baye ah 2018 ah, kër Baye. kër Baye 2018 la at yee gaaw rek. at yii dafa gaaw trop. loolu kër Baye si loolu comme comme comme comme tey. comme tey lay nduróo mais kër Baye la. waaw moom it ma liggéey ci Kombe Kombe tamit ma koy waaw Kombe TV Kombe tamit nekk koo xam ni ku baax la ku laa biir la ku xolam nice mu nekk dégg naa ñaareel frère dama takk ñaareel takkul dara ah, day soob du takk ah, affaire la comme dugal na koy set du takk day naxee <laughs> xam nga mhm. léegi Kombe mhm. teg projet boobu sama diggante Kombe mu nekk loo xam ni indi na relation yu bari Kombe woo dërëm gaajo ni ko yàgg bàyyi war ngeen mën def ay jiwoo ci la suñu contrat leeral nekkoon. waaw ah, loolu a gërëm ñu doon def ay émission leeral. leeral gërëm gaajo moom it ma koy nuyuwaat di ku ñàkk ki ñaan. sama waa ji xam ne ba muy xew xew ma. waaw mu ma kañ rek dina baax. ba yàlla fekk si lii. dërëm mhm. gaajo ma koy nuyuwaale bu baax. ah mu di say taw féex. sama waaj kenn du moom. waaw kon ma ci liggéey Kombe ci kër baay bi mu nekk loo xam ne yàlla teg ci loxo mu def boobu. muy 2018. Mhm. 2018 waaw daw seen people après lay door a daw kër Combi TV kër Combi TV waaw ok mm. ok ci nuyu wàlla ñëpp kër baay jigéen ñi góor Awa Ndiaye Kia Ruji bàyyi ma kenn quoi loolu neexoon na trop ba non day am gars yi na ñu ngi laaj quatrième bi mais dama koy bis mais loolu dafa war am quatrième de non dama koy bisaat incha allah yaa na a na mu doo ma koy nuyuwaale yaa ngi ko fa maa koy bëggee bu baax baax mais Baye euh, mm-hmm. wax dëgg yàlla ku wax ndaanaan rek euh, Baye boo nee ndaanaan ndaanaan jeex na mais Baye euh, noo gisee aar bu njëkk ak léegi waaw aar bu njëkk nag ak léegi pour man li bu ma waxee aar bu njëkk ak léegi mooy euh, télé télé téléfilm yi nii xew. ni mel léegi nii vidéo ni image bare. waaw foofu ngay waxee. parce que uh-huh. ñun bu njëkk. Uh-huh. boo dee xool suñu ginnaaw avant image bariwul. Uh-huh. caméra bariwul. léegi tey ku ne téléphone sax da ngay gis ni filmer téléphone am. def non da ngay da ngay toog sa kër parce que talent moo bari. talent yi moo bari boo seetaanee ci YouTube bi nga xam ni ñii liggéey dafa bari. kon tey bu njëkk. li jafe bu njëkk bu yombee tey da ngay gis ñi ci war a liggéey dañuy liggéey mais tamit ñi nga xam ne liggéeyuñ ci tamit dañ ciy foofu dañuy foofu waaye nag ñi nga xam ne dañ ciy liggéey ku leen xool xam ne ñii ñi ngi liggéey mais d'une part des fois da ngay gis nag ne euh, ñiy def casting yi xamuñu ku mën ku siiw lañu xam non te parce que man pour man casting ci def casting am kim soxla rek lay jël ah, waaw kim soxla lay jël kim soxla rek la mën a jël man du ma contrer bindkat bi wala ki nga xam ne mooy def kastilu boppam man du ma ko contrer du ko dara parce que li soxla rek lay jël ah. li mu soxla rek lay jël franchement. ok mais ñi def film yi tamit mi ngi nice ñu ciy gis. ci mais lim soxla rek lay jël mais bu produit bi paree ba ñu teg ko di nga xam ne différence am na ki ki ki euh, ki mbapat ak ki mbapatul di nga gis différence bi. waaw loolu moom ci même ci bëre sax noonu la da ngay gis ki ëpp entraînement des fois bu ñëwee bu la jàppee ñu xam ni kii doole la ko jaay xam ni kii doole dëgg la ko jaay def ko ni mu koy def dem yoonam mhm. mais loolu la armel bala ngaa xam ni ta carrément gars yi am na fuñ mënantee ñu wootante théâtre sur scène mhm. téléfilm xam nga copie collé la waaw mais boo koo ci woo ci théâtre sur scène ah, dëgg yàlla dina xam ni carrément kii théâtre sur bii ñu nekk mhm. ah da ngay da ngay joxe loxo da ngay apprécier parce que ñun ci lañ jaar ok théâtre sur scène nekk di nekk nekk ci tey. moo la def li nga doon moo ma def li ma doon. Ah. ok ok am na solo. mais bàyyi ak ak ak ak artistes yi mbokku artistes am yi parce que gis naa sànq yaa ngi sant ku mel ni Kombe Birame Gaajo loolu relation la bu rafet boo xam ne am nga ko ñëpp. Euh, Thiès je waaw. Ah. man artiste nag yàlla damaa bindee loolu. Mhm. man avant muy siiw sax artiste yëpp yëpp yëpp yàlla daf ma doon dogal ay prestations yoo xam ne dama nga daan am ci seen biir ñoom ñu may yóbbaale mais buñ demee ñoom duñ ma bund xatal. Mhm. artiste yëpp nag laa wax. Mhm. per bu xar daaraw amul ku mënti doon saa neexu ñëpp man chance boobu laa amoon muy lan dañ ma daan yaatal ci seen biir. ndeysaan ñëpp nekkoon samay xarit ñun rek artiste comédien yi rek ngay gis. Mhm. ñun rek. ñu woote benn délégation ñun ñëpp ñu bokk jotaay. di kafandoo di reewandoo mbër yi boo leen wooyee ku ne day bari taxawaayam fële. rappeurs musiciens yi. Eh, nañ booloo nag. mais loolu il est nekk. <laughs> parce que ñun moom dañuy ñun artistes yi comédiens yi dañuy boole suñu lépp def ko benn. Mhm. ñun ñëpp boo demee da nga naan non artistes comédiens yi da ñuy fan sax parce que ñoo bokk nday bokk baay. Mhm. parce que mhm. lépp ñun la quoi. a ah, aw ma benn artiste nag xaar ma yàlla amul. Ah, artiste boo xam ne mën naa taxaw ni bàyyi daa xuloog man wala bàyyi naa non non non. nañ def li Papa Thione waxoon rek. waaw ah. lafañ ji booloo nañu. Euh, mbër léegi nag na waykat yeeg ñëpp booloo nekk benn parce que àdduna amul solo aar dafa yaatu waaw moo tax may nuyu waale sama mbokk artiste yëpp yëpp nag képp koo xam ne muy artiste bi xew li ma naan artiste bu mag amul ku xew laa ku xewagul ku xewagul mais may nuyu ñëpp ñëpp koo xam ne artiste nga rek fi nga nekk ak foo mënti nekk rek ah maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah nuyu Ibulaay Ibulaay laay jox nuyoo bi Ibulaay bu précise bu Papa Doumbouya waaw Ibulaay bu Papa Doumbouya moom laay jox nuyoo bi di wax lu ma artiste yëpp yëpp yëpp yëpp. rafet ñëpp samay waay lañ. rafet na waaw <laughs> kontaan naa mais mon frère noo def ba intégré ci Abba. ci Abba jékki-jékki nañ la gis la ci Abba. Abba nag gis ne def la bëgg def la ci. teg la ci côté am. waaw nan nga def ba ba yegg foofu. waaw kooku ki nga laal nag dëgg yàlla mu jiw maa liggéey moom mais ñu bari dañoo def moom laa mu jiw liggéey waaw parce que bi Kër Baye cartonné 2018. Mhm. ci laa doon wax lan moo ma gën a neex ci jigéen. waaw Abba loolu di ko faj. waaye léegi lan moo la gën loolu est-ce que duñ ci ñëw. non non rek Aba. Ah, ah, daa di gis loolu. Mhm. muy def CICES 2018. Aba bi muy def loolu 2018 CICES. waaw la fa doon def. la fa doon def. ok bi mu koy def mu invité ma. ma mhm. ñëw mu dalal ma logement chambre climatisée. pour trois jours. yàq na la ma ma ma ma ba yéeme. mu nekk loo xam ni. Mm-hmm. ma ci kontaan. Mm-hmm. Abba ba tey bàyyiwul deux mille dix huit dis mille dix neuf deux mille vingt man ak Abba ba Abba bi muy def confinement bi bi mu dikkee ñu invité ma pour ma def moom live ci télé bi. Mm-hmm. lan lan moo indi euh, kii boobu. link bi ah. non Abba moom dafa am équipe. comme équipe te Abba bu gisee lu neex soxorul bu gisee ku neex rek danaa kii nañ ko jéem a indi xool nu mu tojee dëkk bi. parce que xamul tax ma dugg foofu frère mhm. euh, Abba suñu frère boobu ñu ngi koy nuyu euh, moog Balla parce que dañu gis ne ñi ngi liggéey liggéey bu am solo ñi ngi xool ñi nga xam ne dañoo am talent comme li ëttu ndaa concept ëttu ndaanaan mhm. xool ñi nga xam ne am nañu talent gars yi xamaguñ leen wala am na lu leen umpale ci ci aar bi mhm. teg leen fii waxtaan ak ñoom Abba dañu gis ne loolu lay def non Abba moom ñu koy nuyu man Abba dama naan man tey dafa am lu jafe parce que ñun lu ñu am mooy lan ministre de la culture wala président dafa jox ko artiste yi. jox am na ñu am am amul. Mhm. waaye ñun. Mhm. Aba defe naa mooy suñu ministre. yéen waa kër Aba. waaw parce que Aba biñ ci séddalee ñëpp Aba tamit daf ñoo woo séddal. ndeysaan génn li mu yor ne nañ ko bokkuñu ñun ñii. comme ñëpp jox nañ leen ñun joxuñu ñu nañ leen jox. waaw kon kooku mooy suñu ministre. waaw Aba bëggul ñu xiif bëggul ñu mar bëggul ñu rafle. Mhm. Aba fu mu dégg ni kii mi ngi joxe sànce allo baay demal ci diw mu jox la sànce demal ci kii mu jox la daal. Mm-hmm. dama ci kii mu jox la téléphone dama ci kii mu jox la wëts demal ci kii mu def la nangam. macha allah kon tey kooku dalaa def ni boppam. Mm-hmm. abaa nekk nit koo xam dafa xolam moo nice. xolam moo nice loolu mën nañ ko seede parce que xam nañ ko ci ni mu koy defalee Balla ak ni mu koy defalee. Thiès ak ñëpp ñëpp ñëpp. ak yow mi aussi ñu xam nga ci ci relation yoo xam ne yu rafet la. tey waa Thiès man su ma demee dakaar dooleel Thiès nekkal fa waa Thiès. Mm-hmm. di wane ni man dama feer ni man Thiès laa juddoo fi laa dëkk. kon dama naan kat ah. à grâce de Abba. parce que nit ku nekk da xool li yàlla jaarale ci sa loxo. Combé moom la yàlla jaarale ci ma siiw ma gën a siiw. jëm ca kaw nit ñi gën mu bëgg. yàlla mi ko jaarale ci loxo Abba. boole la ak Abba téere yàlla na yàlla gën a dëgëral seen am. allahumma amiin allahumma yàlla bu seytaane dugg. Uh-huh. yàlla bu seytaane xaj. Uh-huh. mais euh, kan mooy sa idole ci aar bi. sama idole ci aar moom àdduna bépp ñëpp xam nañ ko Sanex la. Sanex Samb Sanex la. saa neex man moo mais mais mbaa yéen a ngi gisante yaa saa neex. bon lu yàggul dara barki démb ñoo nekkandoo cosaan. Hmm. barki démb rek ñoo nekkandoo cosaan mu nekk grand bu baax suma lépp la xam nga kooku bokk na ci ñi njëkk a yóbbu ma ci prestation bu seer biir orange. biir orange ñu dem may def ay prestation mu yëkkati xaalis taggu di ma ko jox. Hmm. ma koy nuyuwaale suma grand Cheikhou Gueye di lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm. Euh, Baye xam naa ñu ngi suñu jeexantalu émission bi. Hmm. mais nag may nuyu sama tailleur bi nga xam ne yaa mi yaa couture. moom hmm. ñawal li ma sol. Hmm. génn feeg man mais naa fa nag Baye dee ko def lu mel nii. di nuyu sama mère Fane Cissé. Euh, yàlla na yàlla defal yàlla yàlla yokk ay xéewalam bu baax a baax sama yaay yu baax jooju maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mais Baye. ah ñu ci jeexantal émission bi. waaw damay laal tuuti ci Yaya Miami Couture. Mm-hmm. waaw xam nga tey li yombul. Mm-hmm. nit ku lay defal ngay def émission nit ki ne saa booy def émission maa lay xotti. waaw moom jaayante wutti si. jaayante léppam. kon ko xool bi rek dafa rafet. waaw vraiment xam nga bu deful sax yéeneem am na yéene. Mm-hmm. kon dañ koy ñaanal di wax ni doomu Thiès la. du dëkk bi la dëkk. nga ci gars yi jàpp di dem mu leen di yu rafet yi. ah Miami Couture. di la ñaanal jàmm. daal na loxo bi wér. waaw rek. waaw ah, mi xam naa ne ëttu ndaanaan la woon ak Baye Gaye ñi am mbégte kontaan te dalaloon ko suñu émission ëttu ndaanaan uh-huh. émission bi nag waaw émission ndaanaan la mm-hmm. kon émission bi di ci wax Cees waa yëpp nañ pare waa Dakar waaw waa adduna sax laay wax <laughs> mm-hmm. tout ñu préparé émission ëttu ndaanaan mm-hmm. man Baye nag di waat waa Cees bu baax a baax a baax aw ma seen fay waa Cees di leen ziaraat bu baax aw ma seen fay yow moom Cees moom ah. sa Cees la non xam nga rek man su ma nee Cees am ak ñëpp jàmm xam nga nit dëkk na cees mhm. bu fi jaaree kenn du ni ko eh. dëgg la kon man su ma fi rombee ñun ma xëy rek naa sant yàlla. ñu nuy war waa cees bu baax a baax. xam nga Thiès sama xol la nekk. sa xol la nekk waaw man maa bëgg Thiès man. parce que lépp fi la nekk. suma yaay fi la juddoo suma papa lépp fi la nekk. Mhm. waaw mhm. kon bu ma demee dakaar di ko yëngal rek cees laa fa nekkal. du man rek. kon may waat ñëpp àdduna bépp. kon bàyyi bu àdduna waa Thiès dañ ko bokkal àdduna bépp. mais mais mais Baye am naa tuuti question de parce que waa Sénégalais yi dañuy dañuy bàyyi. waaw dafa dafa dafa dafa réew nga baal ma ci kàddu bi. mais koy tënk xam nga nit bu ñu nee dafa réew xëy na xamuñu ko. Mm-hmm, mm-hmm. te théâtre euh, wala téléfilm rôle la mbubb la bu ngeen di sol. Mm-hmm. est-ce que Baye dafa réew naturellement wala liñ koy jox mu koy joué lay la bëgg a jox askan wi comme ni mu leen neexee. non la loolu non non man nag man nag franchement franchement. naqari deret daal mun nañ ma ko waxal. Mhm. dama naqari deret ni ma yàlla dogalee ni ma tuuti noon laa naqaree deret. Mhm. kon du ci reewande théâtre bi nag noonu moo koy defee pour man bégal askan wi moo tax. macha parce que Sénégal daa am foo leen war a mën a jàpp pour ñuy bég di kaf di ree boo leen jàppul foofu rek pour man baaxul. Mhm. mais bu ko gisee nii bàyyi bu géeyee fee bu pare rek pare na ci. xam nga bàyyi ak bàyyi bi am na oh, différent. bu bëree bëri mais nag du. lu lu nekk ci man. Mhm. lu may fooyee la rek. mu ngi noonu waaw dëggantaan. <laughs> kontaan nañ am nañ mbégte kontaan. dalal nañ bàyyi seen émission. wuy ma bala ngaa dagg émission bi. Mhm. dafa am ko spécial ci man. sagal oto ba lay taxaw na leen. Eh, bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi mais yaa ngi sa xaalis de. non sant yàlla ñu ngi sant bu baax. macha allah parce di nekk nit koo xam ne. Mhm. nit ku baax la. borom Gambie. Xaadim Ndour Serigne Ndeye Binta. Gambien la non Sénégal la mais Gambie la nekk. mais Gambie nii. ah ok di liggéeyee biir Gambie. Mhm. entrepreneur yu Yaya Jammeh la woon. Hmm? ba nii mu nekk fa concours di liggéey ba tey. macha allah kon kooku ndaanaan la. Mhm. mu ñu ma la wala teral jëndal ma oto bee. Mhm. siggil ma def ma nit. macha kon ñëpp loo ko defal képp koo xam ne yaa ngi soppee bàyyi rek xaar njuur defal na la kon maa ngi leen koy ñaanal ngeen ñaanalal ma xaar njuur ma bàyyi kook yàlla. yàlla defal ay mbiram yokk ko ba yëg mi ngi noonu nga am jàmm bu baax a baax kontaan nañu jërëjëf artistes yi gars yi dañuy war di bégal parce que yéen a ñuy bégal mhm. kon ku leen bégal rek euh, dama ko Balla Balla Balla Diop dama ko wax ah. Balla Diop TFM xam nga xam Balla Balla xam nga mooy suñu scénariste loolu wax xam naa ko mooy mooy bind gàll non stress Balla woo naa ko démb moom kenn du moom Balla dane ma ah. dafa ñëw sama kër bi Thiès ak ñoom Aba dal fa ba émission euh, bi jeex ñu ñu dem def émission mu ne ma euh, ma teraanga gi ñu defal defaloo ñu ma ko man kese mais waa ñëpp nga ko defal ñëpp nga ko defal donc aar dafa yaatu ñu ngi lay sant Baye. mais mais dafa am ku ndaw. koo xam ne man Dakar bu ma nekkee à l'aise su ma nekkee à l'aise à cause de l'homme l'homme wañ l'homme mooy mooy abaa moom lay tudd rek l'homme l'homme non stress l'homme maa ngi lay ziar ah di la ñaanal jàmm kooku boo ñëwee ci néegam da nga naan man maa moom néeg bi kon ci néeg ci l'homme laa nekk appartement l'homme macha kon l'homme bu ma ñëwee ci apartement mu yaatal ma jox ma caab bi mm-hmm. jox ma léppam kon man lom suy ñëw dafa may woo damaa bëgg a ñëw ci néeg bi kon ah sant yàlla kon lom aw ma sa fay yàlla na la yàlla fay bàyyi naa la ak borom daaru ñi nga xam ne moom nga doy law moom nga yaakaar mu fayal ma la kontaan naa ci yow lom merci beaucoup mi ngi noonu jërëjëf ndaanaan la woon ak Baye beneen yoon ci beneen numéro